wa képp koo xam ni kafara weddi na falaa yuxzinka bum la yéem yow yonent bi salaay sallam alquran nag dafa yaatu ba ci yow mi woote ci yàlla nit ñi di la weddi bum la yéem yàlla ne bum la yéem yow mi tege ci yoon wu baax nit ñi di la ŋàññi yàlla ne bum la yéem yow mi jéem lu baax nga gis ñu lay saboté ka yéjje ka ñaawal pour nga décourager bàyyi lu baax li ngay def yàlla ne bu mu la yéem oustaz Ousmane mi nga xam ne oustaz yaa ngi ci daayira yi di waaraate nga dégg ku la sànni tarak yàlla ne bu la yéem moo tax mu ne yonent bi wala yuhzinka bu mu la yéem mukk kufruhu seenuk weddi giñ lay weddi ndax ilay naa jëm si na ci man yàlla marji'ukum muy seen delluwaay bu ngeen ñëwee fii nag bu boobaa di ngeen xam ne fa unabbi'ukum dinaa leen xibaar bi maa ci la nga xam ne amilu jëfoon ngeen ko ca àddina dinaa leen ko xibaar kon kuy def rek nay lu baax de bu la neexee nga jël ko nga ne falaa yaxzunka bum la yéem mukk kufruhu seenuk weddi ndax marjiukum seen waaye ilay naa jëm si na ci man yàlla ba neexee nga firee ko noonu alquran nangu na ko waaye man boobu man du ma ndax alquran ni mu tëddee rek la baaxee waaw tëddee rek la baaxe falaa yuxzunka bu mu la yéem mukk kufruhu weddi giñ la weddi seenug weddi bu mu la yéem ñoom yéefari ilay naa jëm si na ci man yàlla wala ñun yàlla marjiukum seen delluwaay su ngeen dëlsee fii ci man yàlla nag bu boobaa na leen wóor ne fa ca saasa fa ca saasa nu nabbiukum danaa leen xibaar xibaar bu ànd ak wan wan leen bi ma la nga xam ne amilu yéen a ngi ko doon jëfee fii ci àddina ñu ne ko lu tax mu ne inna allaha naka buur yàlla alimun mooy aji xamaakoon bi bi zaati sudur yi li ci seen jëmmi dënn yi te xalaatagu leen ko sax xam naa ko man yàlla moo tax nu mattiukum danaa leen yóbbal fii ci àddina nag ñi ma weddi yàlla ne dinaa leen yóbbal fii ci àddina qalilan lu néew ñu jógee fi su ma nattarruhum topp ma mëddi leen àllaaxira ila adabin xalis ci mbugal mu doyadi yàlla day wane ne fii loo fi koomle oomle oomle oomle lu mu bari bari jeex a ciy topp lu bari bari rek jeex a ciy topp bu jeex ñëwee nag yàlla ne bu jeex ñëwee bay bés bañ ci yegg si mu ne danaa leen mëdd ila adabin jëme leen ci mbugal moo xam ne xaliisin mbugal mu doyadi la doyadi mbugal mu doyadee doyadi falaa leen di yóbbu xam nga mbugal rek doy na xam nga lu tax ñu ne la mbugal mu doyadi mooy torturer doo ànd nag mbugal rek de dañ lay lakk di la torturer léeg-léeg nga gis malaaka yi ñëw njoof nopp bi léeg nga gis ku ñëw rek bënn bët bi waaw waaw léeg nga gis ku ñëw rek jël ràbb rek roof ci bakkan bi léeg nga gis ku ñëw rek ne tappit awraw yi te buñ ko daggee day del siwaat luñ dagg rek automatiquement day del siwaat poosé wu waat fa mu nekkoon te bu dagg bu njëkk bi mooy gën a woyof bu ñaareel bi yal nañu yàlla musal ci mbugal waaw yal nañ ci yàlla musal léeg-léeg damay sangu rek ndox mu tàng mi bari ma ne wéy sama ndey fu ma jëm <laughs> dama ne dama teg yal nañu yàlla musal ci safar saa yu ma dalee rek damay xalaat wa subbu fawqa rasihim min ma in galiz xamim yàlla yàlla lu ne wax na ko saa yu ma dalee rek damay xalaat ma ne xoolal yàlla wax na lii ci alquran nee na ëllëg bés penc ñi may mbugal damay jépp jékki-jékki rek sotti ci seen kaw bopp yi ndox mu tàng jër muy bax te kenn du ko du ko segg burit lay ñëwee burit ma ne noonu fuñ jëm ku ko yàlla nattoo foo jëm te àddina day jeex mbokk yi àddina day jeex billaahi yii ñuy wax yëpp ku dugg bàmmeel di nga xam ne am na ku dugg bàmmeel rek sa kumpa jeex na mais c'est trop a ciy tege bu baaxee fa lillahi alhamdu c'est trop tard bu bonee c'est trop moo tax nañ góorgóorlu bi ñuy mën defal yàlla te bàyyi caaxaan yi jël yëpp teg ci gannaaw nañu liggéey ba mel ni tey la duñ dee waaye nañ jaamu yàlla ba mel ni tey la ñuy dee jaxate <laughs> buñ nax suñ bopp bul jaxase de mukk jaxate bul jaxase te bul jaxasoo boo jaxasee yàq boo jaxasoo yàq waaw eh, yàlla mooy yéeme moo tax Serigne chartijan Tidiane si nee na ba mu waxtaan ca France façon mbugal yi xam nga li tax yowmal xiyaam garaaw yow <laughs> étape yi moo gën a garaaw xam nga lu tax mu tudd xiyaam bu ñëpp taxawee ñu nag jiit yeeg jànkalaar yeeg jaan yeeg ñëpp koy bokk kat waaw waaw rab yi nga doon ragal yëpp yaa ngi bokk jotaay bi benn pàkk bi mboolem animaux yi nga gënoon ragal ci kaw suuf yi ngay gis ci géej géej jéeri gi yëpp yenee bokk jotaay léeg nga gis rek jaan ju ne day <laughs> kaw ku ragaloon jaar nag ne wéy sama ndey fu ma jëm loolu la ci yàlla bëgg programme boobu la ci yàlla bëgg yàlla nag toog ci gàngo naayam nga di seetaan ne seetaan ma le con la defaguma dara ñuy tiit wallaay yàlla xoolal le defaguma dara ñuy tiit di a doon bàkku ci àddina di jaay mbërum làmb yéen a doon bàkku tey lu ngeen di daw lu ngeen di daw li manil mun ko yow ma yéen a foogoon ne yéen moom yëf yi maa ko moom acca mu nga jékki-jékki di gis gaynde gu ne ah ñi ragaloon gaynde ñëpp fatu ji te doo am foo fatu ji loolu la taxawaay boobu loolu lay jëriñ lépp luñ ragaloon ñoog ñoomay bokk jotaay bi te sëñ bi am na rab lu rab yu garaaw yu raglu yoo xam ne rek day na mbugal te ñoom duñ la mën a fàdd duñ la def la yàlla day def ragal ci ci yow rek waaye ñoom tal nañ leneen ñoomit it waaw ñoom ñu ngi ci seen biir di régler compte ñoom ñoom ñun ñu ñuy tiitee la tiitee ñoom amul ku du tiit bés peñ xanaa kenn suñu waa ji sallallahu alayhi wa sallam kooku rek kay dekki xelam dal mu am tranquillité kon yàlla nañu yàlla defal sutura Mansour yal nañu yàlla dafa ju sutura Mansour Diop Hadj Malick nañ am kilifa rek gis nga yii may wax nag waxuma kenn sukkandiku ci ba naagu ku naagu daagu ku daagu ñu raw la day ànd ak falaa yaamanu makrallahi loolu la Cheikh Sidi Ahmed Tidiane wax nee na sama garanti tarixa bi yëpp mu ngi tegu ci falaa yaamanu makrallahi illa al xawm al xaasirun ànd ak nga ñàkk a wóolu pexem yàlla waaye booyal sa bakkan lu la neex def naan seex garanti na ko billaahi cheikh garanti wu kuy jub ak kuy jub jublu ku baax ak ku bëgg a baax la cheikh di garanti waaw waaye booyal sa bakkan ne maa ngi ci gannaaw alaaji Malick wala Serigne Touba ndax nga sa bopp Serigne Touba garanti benn wuyu la sëñ Fallou Mbacke waxoon waaja ba muy sëñ Fallou ku ragaloon cat la maga sa dégg nga ma nem sëñ Fallou ponkal moomu moo rag nga xam ne wólu yu kaamil la Serigne Cheikh Tidiane Sy ko wax Serigne Cheikh nee na Sénégal ñii xamuñ seen xam-xam mu ne sëñ Fallou Mbacke ala Cerno Seydou Nourou sëñ Cheikh Ba Mbacke Gaynde Fatma mu ne ñii seen xam seen wilaya lañ xam mu ne te borom xam-xam pire lañ sëñ Fallou li muy bari bari xam-xam ak li muy bari bari daraja cat rek la ragaloon bu ma di tukki bu ñëwee dakaar bay génn Dakar danaan chauffeur bi taxawal ba xaat dem ba xaat dem chauffeur bi gaaree ci benn taatu garab pendant quinze trente minutes mu door dina ko demal xam naa ni borom làmmiñ ñi ne nañ fàllu yegg na xaat gis nga mu ne ko nañ xaar ba xaat dem gis nga bu toogee trent minutes ne ko waa ca taalal na xaat dem na gis wax na dëgg ñun liñ bëgg yëpp cat la yiñ bëgg yëpp cat la yàlla ñuy musal rek waaye ñun waroon nañ dee bu yàgg ndax ñu dañoo catu suñ bopp ba ba doyal waaw yiñ bëgg yëpp cat la dawal oto bu rafet sañse yooyu yëpp cat la nit ñi di la tudd waaw yooyu yëpp cat la yooyu yëpp cat la yàlla ñuy musal rek ak ak doole yi julleeg doole gis nga boo waxee nag yéefar yi lii yàlla wax rek mooy fi mooy añu yéefar yi yàlla du la xañ ndool ñaar xañ la àddina xañ la àllaaxira yàlla du ko def parce que daf la fi indi pour nga tedd yëfar bi faw mu tedd ak dunya jannatul kaafirina wa sinnul muminina tekkiwul nag jullit bi di dof dof loo ko yàcc yàcceelu yàccaaral bàyyi boppam di yuute ko tappa tapp yooyu yooyu taxul ñuy wax de yonent bi dafa ne addunya àddina jannatul kaafirina mooy àjjanaay yéefar waaye wa sinnul muminina mooy kaso yu jullit ñi xam nga lu tax muy sa kaso sañoo naan sàngara te yëfar bi bu ko neexee naan benn tàtt tere googu ñu la ko tere <coughs> te alkaati taxawut ci sa kanam ba boo ko defee mu yóbbu ci kaso bi waaye gëm nga ne am na alkaati bu la yàlla booleel muy nakir ak munkar te soo ko defee ñu enristre ko nga bàyyi ko yaa ngi ci kaso sa bakkan dina not wa naha nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal mawa mu noon booyal sa bakkan ne tàtt ci sàngara si ba sa xol sedd yootu dorog bi fóon ba doyal muqi ci yàmbaa ji ji jeeg bu la yomb nga tàppaas ko bu nangoo ngeen ànd disket bu la romb nga ne ko jetem bu nangoo ngeen ànd yooyu yëpp nga bari wa naha nafsa anil hawa nga tere ko sa bakkan kaso la mais kaso kaso pur la kaso la disket bi romb yu gàttam mu wóor na ne boo ko cokkaasee mu d'accord nga ne yàllaa ngi fi naa bàyyi mu dem kaso te yow amoo jabar sa boole ci ndax bu sa yaram tàngee foo koy serale ki am jabar sa bu yaram mu dem seeti kër ga waaye yow mi ci mbedd mi xulli ba sa yaram tàng foo koy serale nañ wax nañ wax dëgg tere gi nga tere sa bakkat nag ba doo ko seralee fen fu dul muñ te xam ne karawaasu yàllaa ngi ci sa kanam doonte dóoru la ko yaa ngi ci kaso newoo ci kaso yaa ngi ci kaso loolu lu kaso boobu la yonent bi di wax waaye waxul kaso buñ la naan ràpp boo xam ne da fay nekk kat koñ la doo mën a génn waxul kaso boobu terewu laa waxul la it bul dem liggéeyi pour am luxe qul man xarama zinata allahi mu ngo booboo ko dindi allati axrajat li ibadihi ku la wax ne bien ak yu rafet yi yàlla daf ko tere jullit ni mu ne lii qul hiya lilladina amanu fi lxayaati dunia waaye nag xaalisatan yowma alqiyaama yàlla ne fii moom mën nga ko am yéefar bi dàqale la ko wala ngeen tollale lix mu ne ay bés nag yow jullit bi yow kese yaa koy am te yéefar bi du ko am moo tax mu ne ay dunyee jannatul kaafiriina wa sinnul muumin mooy li Cheikh Seydi Ahmad Tidiane waxoon rek ba waajee sàccee xaalis bi mooy aaya bi ma wax léegi hmm? nu aaya bi tàmbalee sax wa ammaa man xaafa maqaama rabbihi wa naha nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al te loolu mooy dëgg entre parenthèse laa ko def ñu dugg ci comme tudd naa Seydina Cheikh te moom mbiram kenn du ko cof bi muy door a ñëw Medina mais astafurlah bi muy door a ñëw Faes ulamaa yëpp di seet lu ko galgal boole wut ak ñu joxoon dog pour Cheikh de pour na Cheikh de juróom-ñett fukki mag yiñ yaakaaroon ne yegg nañ ci yàlla kumal luñ ñaan yàlla nangu dañ leen joxoon kurus ne leen yéen dañ leen di fay par weer seen itti mooy nguur gii daal bu mu fi guddee fan waaw góor gii daal ah, lu bon moo fi yàgg góor gii bu mu fi guddee fan yàlla man affaire gis nga juróom-ñetti fukki mag yooyu ñëpp suul na leen dund juróom-ñetti fukki at maa la ko wax ñëpp suul na leen dund juróom-ñetti fukki at lu benn wali yu mosul dund foofu Seydina Cheikh dund ko fa xam nga zawiya bi lu indi poto yu rëy yooyu Haaj Malik ah, ah yow di fa dem mbon la ilaha illallah kon ne di fa dem incha te du yàgg ah, jërëjëf ay dara fa dem te du yàgg incha allah di fa dem te du yàgg incha allah ah, Mansour gis nga li tax poto ya ngand noonu ah. bi muy tabax zawiya bi gars yi dañ seet si ingénieur bi koy tabax ne ko dafa dijj marine rek waaye amul lu mu tabaxee fayeku ko lu bari mu fayeku ko Seydina Cheikh ne ko du ma waxaale ci mbir yàlla loo waxal ma fay la ndax ingénieur bi di ku ko ñoo ne ko poto yi foog ñu def ko mu mag ndax daal diire bi dañ ci soxla diire bi wax wax Seydina Cheikh ne ko loolu sa wàll la man du sama wàll loo xam ne moo koy yéwénal rek boo ma laajee ma jox la mu dem wax gaa yi gaa yi ni ko ndokk ndax mu yem ca lu mam rek mu yem ci poto yi moo tax poto yi ngan noonu ndekete woo day tax zaw yi bi gën a dëgër <laughs> alladina yunfiquuna amwaalahum lii suddu lii suddu an sabilillahi mu ne fa sa yunfiquunaha summa takunu alayhim xasratan summa yuxlabuuna boobu ma ci gën a neex na yàlla ne alladina gaa ñi nga xam ne kafaru dañu maa weddi man yàlla te bëgguñ lu baax mu ne na dañuy dépenser amwaalahum seen alal yi li yasuddu ngir ñu dévier an sabilillahi yoonu yàlla wi waaye fa sa yunfiquunaha fa fañ koy defee immédiatement yunfiquunaha daañu ko dépenser su ma takuunu mu nekk xasratan di perte ci ñoom ndax lañ bëggoon duñ ko am su ma topp nag yuxlabuuna danaa leen poñe dóor leen booboo ci gën a neex pexe du sotti ñu duma la booboo ci gën a metti ah booboo ci gën a métti looloo dal occidentaux yi fi mu ne lu ne ñu ngi koy jéem ci lislaam waaye day mel ni pétrole boo sotti ci taal rek gën a tàkk rek li yuriduna li yutfiu nuurallaahi bi afwaahihim wa yaaba allahu illa an yutima nuurahu walaw karihal kaafiruuna yàlla mën a wax moo tax fii nag ñu continuer balaa waxtu wi moo tax mu ne fa nu nabbi uhum danaa leen kon dana leen xibaar su mën a tarruhum topp ma mëdd leen mëdd nag baatu wolof la mooy noyé waaw kañ ma mëdd leen ilaa azabin jëmee leen ci mbugal moo xam ne ghalizin mu métti la te doye mu ne wala in saaltum waxtu woo xamee ne laaj nga leen man kan xalaxa moo bind man ana kan xalaxa moo bind samawaati asamaan yi juróom-ñaar wal ardi suuf yi juróom-ñaar intérieurement dañ la dañ dinañ wax ci seen xol ne yàlla la waaye extérieurement dañ la naan xamuñ ko loolu lay firi fa sa yaquluuna allah fa sa yaquluuna ji faji mooy intérieurement waaye yaquluuna ji mooy extérieurement yaa ngi koy déggee ca summa nukisu ala ruusihim ca maam Ibrahima ak xërëm ya summa nukisu ala ruusihim laqad alimta anna ma anna haula yantiquuna bañ mag yee cinq sages yàgg na fi de cinq sages yi moo tax président bi mu ko changé def ko six sages rek mën a yàq léegi mu def ko sept sept yi sax tane na waaye cinq yee gënoon moo gën ci Sénégal cent vingt députés moo gënoon ci senegal lim yooyu li ko fi bàyyi woon xamuñ ko cent vingt députés cinq sages mënoon na yóbbu Sénégal fu mu bëgg a dem. dafa am lim boo xam ne jarul changé wa kam min fiatin qalilatin galabat fiatan kasiratan lu tax bi iznillahi wallahu maa sabirin wallahi cinq sages yàgg na fi ñoom cinq sages yi ñu daje mooy baleen maam ibrahima ne xërëm yi yàlla ju mag ji moo mer fejete yu ndaw yi dafa fejete yu ndaw yëpp jël sémmiñ bi wékkal ko yàlla ju mag ji bi gaa yi ñëwee ne man faala hada bi kan moo def si yàlla yii nii mer benn waaye ne leen bu leen guddal wax ji samiana fatan fatan mooy xale bu baax a gis nga fatan lañ wax xale bu am yaakaar waxuñ wala dan de <laughs> waxuñ wala dan waxuñ samiana wala dan de buñ noon wala dan rek xam ne maam Ibrahima nii lee doon def waaye samiana fatan fatan mooy xale bu ñu am yaakaar moo tax ba alaaji Malik ba ba di woy Euh, kan la ci ñoomati waay fatan baatu fatan la moom la ëpp lu ñuy indi kon euh, ni ñu koy waxeeti waaye ci gàttal sami'naa fatan lañ wax xale bu ñu amoon yaakaar ci moom déggoon nañ ko saa bu ne muy ŋàññi suñ yàlla yi dem lañ indi ko ñuy ne maam Ibrahima ne ko man faala hada bi aliatina kan moo def nii suñ yàlla yi feñet ko ba pare jël yàlla ju mag ji solal ko sémmiñ wékkal ko sémmiñ Ibrahima ne leen xanaa du ñu ay yàlla ah man de xaw ma ko ah xëy na sama xalaat yàlla ju mag ji moo mer fejet yu ndaw yi que mu ngi nu wékkoo sémmiñam bi laaj leen ko leen ko est-ce que du moo yu ndaw yi cinq sages yi dugg ci biir pantere Kaaba gi ne dëgg dëgg nag ngóor si wax na dëgg ñun ñi ay dof lañ ñoo gën a xam ne yàlla ji mënul wax mënta fejet yii ngóor sii daf ñuy junj yàlla kenn la waaye su ma nukki su alaaro aussi nañ nuur ci suñ bon gi su ma nukki mooy nuur ñett seen loos yi nuur ci mbon waaye waaye bañ duggee ci biir nañ dañ ne dëgg dëgg nag laqad alimta ma ma an haulaay yantiquna dëgg dëgg xam nañ ne nag ñii mënuñoo wax ngóor si wax na dëgg waaye nañ muur ci suñ caacaay gii ndax buñ ko fésalee ne ko wax nga dëgg rek àddina tukki ci ñun ñu génn nag ne goos bi day fen nañ ko lakk moo indi lakkam nga waaye yàlla mën ah. foofu yàlla ñaari stratégie la fa tëral bëggula rusloo yéefar yi ak li ñuy bon bon ndax sonni nañ def nañ pen ak seeni doole ci safara si pour mu tàkk ñetti weer yàlla ñuy taxan di dajale su ko yàlla fayoon benn minute rek ñuy ruus te yàlla na buggul ruusloo sax kiy def caay-caay mukk toujours mu ngi indi suturaam teg waaye xam na ni moo yónni maam Ibrahima du ko toroxal gis nga mooy li Serigne Cheikh Tidiane si wax ne keroog bi yàlla di dàq eh, eh, iblis mu ne yàlla boole ne ñaar yu mënta nekk waaye moom lu mu bëgg mu ànd mu ànd mu ne waaye ñaar yooyu kenn mënu ko boole Serigne Cheikh moo ko wax te mooy dëgg mu ne jéppi ak ñeewant waaw jéppi ak ñeewant mu ne ñaar yëpp la yàlla boole keroog mënta ànd mu ne waaye keroog jamaahuma boole nda ko ndax innahu ala kulli shay'in qadir lu mu bëgg mu ànd mu ànd Serigne Cheikh ne ñewent bi mooy dafa xool peen bi Iblis def ci këram diire bi mu fa am ah yonent bi nee bi muy rañaan sallallahu alayhi wa di jëli julli nee amul fooy teg sa tànk lu toll ni sebre ci asamaan lu dul Iblis sujuutal na fa boromam màggal ko xoolal ni asamaan mu ne amul fooy teg sa tànk lu toll ni sebre lu dul Iblis mos na fa sujuutal boromam. bàkk ko mu ne peen boobu yàlla xool ko rek xëy rek dégraté ko ñëwente na ko mu ne waaye jéppi na ko ndax ponkal mu day ni moom yàlla sant ko mu lank njëppite mu ne mu xool nag ne njëppite bee not ñëwente bi mu alak ko seen kilifa di leen jéppi ndax njëppite day ñiitug cofeel jeex na ah njëppite day ñiitug cofeel waaw waaw hmm? ah, mu ne mu xam ne jéppite gi moo not ñewente gi mu alak ko ci la ko Iblis nag ne ko yàlla xanaa xooloo li ma def ci sa pays bi yow itam ak li ma la liggéeyal mu ne ko gis naa ko mu ne ko yàlla est-ce que xam nga li ma la defal mu ne ko xam naa ko mu ne ko lu tax nga def ma nii mu ne ko lu tax nga def ma li nga def <laughs> xool yàlla dialogue boobu mu doxale digganteem ak Iblis te bu ko neexoon def ko néant waaye mu di dialoganteeg moom bi iblis am xelu mer nag foofu dafa mer ne ko la ughwiyannahum ñi tax nga def ma nii la ughwiyannahum gis nga baat boobu la indi danaa leen bewloo wala uddilannahum danaa leen ni réeral wala aqudanna lahum siraataka al mustaqim danaa toog ci sa yoon wi ne coow ma toog ca digg ba ku ñëw ma dévier la yàlla dina ko jàkk di ko xool xam ne day fen mu ne ko illa man ittabaaka la ughwiyannahum ajmain illa ibadaka minhum almuxlasin benn des sa jaam yi sellal yàlla doo la rëdd rëddam yàlla nañ bokk ci rëdd moo tax Seydi Aboubacar si radiyallahu taala an sëriñ Babacar si daan wax ne yàlla nañu yàlla boole ci diggante del jeeg yaay ji yàlla doo la rëdd ne ko inna ibaadi xëcc taf ci boppam ibaadi laysa laka alayhim sultaan waaw tegal ko ca nag moom it yàlla ne ko illa man ittabaaka min alxaawin xam na ne dina am ñu génnee fii dem fële yàlla dafa prudent xam na ne gaa yi gaa yi mu fatoon ci wetam dana am ñu rocceeku dem fële ndax neex ga bu bëccëgee ñu ànd ca ñële bu guddee ñu ñëw ci ñi yàlla ne ko ba mu des ñi la topp ci sa bewte gi ñooñu moom bàyyi naa la ak ñoom moo tax Serigne Cheikh Tidiane si daan wax ne ñun war nañu war nañu jomba jomba rusloo suñu kilifa mun ndax yàlla dafa xas xas gis nga li ma doon wax dafa giñ ne Iblis maa gañe Iblis ne ko maa gañe yàlla ne ko ba jant so mu ne ba jant sooyee yàlla réglé Iblis réglé waaw yàlla réglé iblis réglé mu ne léeg-léeg yàlla sëpp magasin bi badara bokkoo ci nag ah, gis kiy jaay di dagg tiisi bi di waññi iblis ne ko yàlla xoola li li ma doon bañee mu nga na la mu ne mu gis këy natt ca marché ba haj ah, ah, kii Habib waaw bokkoo ci yooyu di peese. Hmm? ida ktaaluu ala nnaasi yastawfuun wa ida kaaluuhum aw wazanuuhum yuxsiruun alaa yadunnu ulaa'ika annahum mabuusuun li yawmin aziim li yawmin aziim waaw yàlla ne yow mi ci marché bi di wàññee natt gi waylun lil mutafifiina alladina ida ktaaluu ala nnaasi yastawfuun wa ida kaaluuhum aw wadanuhum yuxsiruuna alaa yadunnu ulaika annahum mabuusuuna waaye li yawmin adim iblis ne yàlla gis nga kala dóor na pot bi bem nor mu nat te fekk feesut mu ngay wàññi dal di geesu ne ko xoolal kii mu ngay rege di di piis di jëw te yii yëpp dag ma ko doon tere moo tax nga dàq ma hmm? yàlla ne ko ah wax nga dëgg nag ay la yéen iblis tàcc sëriñ Cheikh ne rasuloo nga sa sëriñ rasul nga sa kilifa te mooy yàlla mu ne yàlla am na gàcce ci kanamu iblis te yaa ko ko teg mu ne waaye bu fajar jotee ba mu sëpp jaamam yi ca jàkka ja di dóor ñaari rakkay fajar mu ne iblis kay kay kay kay mu ne ko ndox mu sedd mi xool ko kii xoolal njàppam mi ni mu setee xoolal Maodo ca wasifa wa xoolal xoolal mu xool sàppe kanam bi ñëpp fees imam bi di tari fatiha bi bu daani wala dooliin yàlla ne ko nakam mu ne iblis jooy ne ko fii am nga dëgg waaye ba bëccëg lu amoon ci jàkka ji ma yàq ko ci biti <laughs> ah yàlla ne ko ba bëccëg eh, iblis ne ko ba tey daan nga ci fajar gi waaye bëj maa ngi lay xaar ba janti fenk bu janti fenkee nga xam ne ñii duñ tus ñi ma jëndee jaruñ ko Iblis a bari doole yàlla ko may doole ji mu am fa bi izzatika la wax waaw ah. dafa njoolu yàlla yàlla kenn mënu koo njoolu waaye dafa am fu mu ko jaar yàlla boo ko joxee lim moom rek njoolu ko ba ko yàlla dàqee daf ko ne fa bi izzatika bon naa gékkug bon waaye xam naa ne yow rek a tedd technique la am daf ko ne bon naa béppug bon waaye fa bi izzatika baatu izza la indi fa lillahi al izza wa li rasulihi wa lil muminina gis nga baat boobu la indi fa lillahi alhamdu rabbi samawati wa rabbi al ardi rabbi al alamin wa lahu al kibriyaau fi samawati wal ardi wa huwa al azizu al hakim mu bàyyi yooyu yëpp ne ko fa bi izzatika ndax tedd nga rek ci nga mën a téye nit yàlla du nit waaye dafa am jikko yu mbokk ak nit mu ne ko fa bi izzatika yàlla ne ko ah xam nga ni damaa tedd mu ne ko xam naa ko kañ loo bëgg mu ne ko kii nga ma jëndee ma des fi di dévier lu mu am la ughwiyannahum ajmain door a géñ moom iblis ne ko maa ngi géñ ci sa màgg ak sa tedd nga ne dinaa leen dévier ñoom yëpp ci ci mbewte laa leen di jaar ñu bew danaa fexe bañ bew topp ma man kenn du ma wéet safara man iblis du ma fa wéet dina am commandal yàlla ne ko may naa la ko keroog la ko yàlla ne mayit la am la an na jahannama minka yàlla foofu yàlla indi pouvoir am ak sañ-sañam teg ne ko la am la an na géñ naa ne danaa feesal jahannama safara jahannama minka ci yow wa man tabi'aka ak ñi la topp ajmaina mboole seen iblis ne ko mën naa koo comme que mun am naa ko ma àndal rek baax na man kenn ma wéet fa laa doon bañ ndax ki ma jëndee jaru ko moo tax war nañ ñu góor góorgóorlu suñ digganteeg suñ borom te sagal yàlla nag ci suñ bopp.